Je vous avais dit s'il essaie de perturber la fête là wallahi muy jeudi muy vendredi du am man maa la ko te xam nga peut administration bi moo ñu ñemee mais ñii ñemewuñ ñu dem nañ campagne ba jeex te génnuñ ci mbedd campagne nañ ba jeex génnuñ ci mbedd mi te duñ génn du seen morom même buñ ma magee ñemewuñ na campagne nañ ba mu jeex kenn duñ ci mbedd j'ai été te loolu laa bëggoon mu continuer mais cette forfaiture cette hold-up là nous n'allons pas l'accepter sont waa yow grand yi ngeen doon sonal ak yi bokkul de ñi ngeen doon sonal ak ñi bokkul lii bu yeboo ngeen dem to dem leen toog vous avez perdu les élections vous devez accepter la volonté populaire vous devez accepter la volonté divine yàlla lii la dogal demal toog bëgguñu woon problème mais c'est toi Aliou et surtout toi yow yaa yàq xew mi yaa yàq xew mi te bu yewoon na nga dem

Il faut essayer, il faut sortir par la grande porte. Tu as été Tu as été Liste d'animateurs, de comédiens. Mais c'est ce petit journaliste-là qui vous a de Dieu. Prenez la grande porte, monsieur le maire, s'il vous plaît. Quittez cette salle-là. dama la rus. Dinaa la dóor de, la dóor de, la dóor

Une vraie opposition.